Ndakaaru place Obélisque tey jile élèves étudiants yi senegal ñoo ko daal di toogaa nuy ñaawlu grève beeg te dakkal gi ci jàngalekat yi mere nañu sëriñ si gouvernement bi naka noonu bëggunu dégg waxi at mun na sax bu nu sañoon balaa ñuy génn ayu bés bile grève bi dakk euh, Marie-Christine Mendy atanaax ba njàkkare mooy feeñ ci kanam ndongo yi li ko waral ñoom dañoo toog ñeenti weeru yàlla jànguñu ndax grève jàngalekat yi ndongo yi bawoo ci bërëb yu ci mel ni Thiès Mbour Saint-Louis ne doy na sëkk. rencontré nañu syndicat yi en en en personne rencontré nañu gouvernement bi en personne léegi ce qui res reste à à à faire c'est soit de prendre notre mal en patience wala ñun ñu génn alerter opinion internationale pour que au moins ñoom bu fekkente ne ñun suñu gouvernement bi il est irresponsable mënul. Euh, satisfaire mënuñu prendre en charge mënuñu delloo dans les conditions d'étude normales ñu ni c'est l'heure pour ñu alerter opinion internationale pour au moins ñoom ñu ñëw ñu intervenir. toogaanu ñaxtu bi ñu amal ca place de l'Obélisque di bu mujj ci manifestation yu ñu amal boobu ba léegi ñoom nag ñu ngi jox àpp ngir grève bi tàkk. benn semaine ñu dese mooy semaine bii ñu nekk ñu dañoo jàpp ne semaine bii suñ ci génnee élèves yi ci boppam ñu leen delloo ci classe yi suñ leen fa yóbbee bac dañ ko dul am ñeneen ñi tamit niveau dañ ko mënatul am ndax élèves yi ñu wax loolu ku nekk day def say calcul xool lan la ñu mën a dolli ak yooyu waaye ñun ñi nga xam ne ñun ñooy jàng ñu ne xam nañ suñu bopp dañuy def suñu calcul nañ lu ñu mën ak lu ñu mënut waaw bët du yenu waaye xam na lu bopp attan donc dañ na semaine bii rek moo ñu dese suñ ci génnee ah ñun jàpp nañ ne dootuñu mën a dellu suñu classe te duñu mën a dellu kon dañoo contraindre ñu année blanche mais suñu année blanche tamit nañu xam ne blanche lay yem année bi moom du fi invalide. mbootaay bi boot élèves yi ak étudiants yi li si mbir mi dakku la dinañu clamer professeurs yi ca bureau international du travail.